Samba Moussa. lii nag jaaduwul d'abord lii lii dafa jaaduwul. déet bul yëkkati sa baat ah amul yëkkati sa baat lii jaaduwul buñ buñ dañoo war di xam heure yi ñuy yeewu. kii xam nga kii nelawul. yow yéen kii mu jug. Moussa Moussa déedéet nag yow tamit déedéet Moussa Moussa. ah. sa koor daa métti mos. ay nelaw nga koy nga koy nga koy defee. ah métti la yàgg na. ah boo wooree da nga noonu bu doon Sénégal moom teeloon dana teel dog waaye fii fanaan toog ba 17 bëgg a dogu man loolu dama ko mën. waaw waaw ah sëñ Abdou sëñ Abdou sëñ Abdou ah, ah, xobu yaa ngi nii ci ma xob yi ñu doon xobu kànja xobu la rek xobu kànja baax na. waaw. Habib. ñi hmm? nga bëgg a jàppee koor bi du dem de. naka ci pexe lu may def. ah, ah lu ma dox a bari. foo demoon. dem naa ba fu ñuy wax san sensibiliser benn boobu waaw waaw. tuuru fële sax dem naa ko. lan ah. wallaay tuuru fële. dem fa laa. fii foo fi gis feder bu. tuuru fële. Eh, waaye Dakar metti waay. ay waay metti na kay. ah ko mat na ñaari néew na ma lu mu xasaw rek baax néew na ma lu mu xasaw baax waay waay waay sëñ bi xam nga ma xasaw gi mbaa du ma rey néew na bu mu xasaw kunu rek foofa la baax. <laughs> xam nga fii booy doog a ñëw. Hmm. Dakar lañ lay wax Dakar. Hmm. yow yow da yow vrai Dakar nga yow. waaw moom nga gis. ndax boo toppee do toppari ki da ko dox. da hmm. xëy rek dox day dugg ci métro yi. waaw moom tuuru fel la moom bâtiment la wala. lo loolu daal tubaab yee mën a liggéey rek yàlla nañ dund ba Sénégal mel noonu. <coughs> seen dëkk bi changé na. Moussa lan la. dama boobu léegi maa la ko bëgg a wax. kon xet gu bon. kër gi changé na daf may def métti bopp. déedéet. te damaa wóor. dama kër gi xasaw na tey de. xasaw na kañ. xasaw na trop. lu foos bu toj. du foos bu toj. bàyyi ma dem bàyyi ma dem xool. waaw foos bu toj koy def de. seetal ba xam. naan muy xeeñ ci kër gi. moom la ma sa nijaay wax léegi moom laay seet de. seet leen woon leen ko mu sax. kon yow xeeñ naa fi yëpp. xeeñ na la looloo ma yëkkati. xool leen ko seet ba xam. ma xool ba xam. kii fii yëpp xool naa fi. lay xeeñi fii. est ce que waañ wi wa man daal sekk man. Moussa tee ngaa jóg it fii la gën a mi ngi ni bun. waa ji xool leen wër leen yéenay jigéen nag wër leen kër gi nag. sama jabar Maguette Fall yàlla na raw Daba Soumaré sama doom Paa Mamadou yàlla na raw doomi Moussa Seck monsieur le maire yàlla na raw ñëpp sama njaboot yàlla na raw yàlla na raw Moussa Seck bu buuf yàlla naa dem ab yàlla naa yàlla naa am Italie yàlla naa dem Amérique na toog xasaw na waaye na tooy rek yàlla mën na maa dimbali ma am ay errance am lépp. moo ngi nii yàlla mën na maa dimbali mais mais mais. yow boo faal ci yow yow yaa di jaam yow butéel bu ma masa sangoo jox naa la nga sangu. sa wàll ngi nii doo ñëw sama wàll jël ko lu xasaw li xam nga duma ko sangoo. Oh. man moom kër gi. mosuma oh, fee sangu. nga sangu fi tey nga may abal tey. yaa bon tey nga may abal. ne sang nga fa yow. tey nga may abal nit ñi ñu la tey nga may abal.